Sazen Lepan Charles. Ci Charles Charles lañ nekkoon ci. waaw waaye xaalis. ñu ngi tolloon ci. fala bu demee te am na. waaw maanaam du da ngay gis xadis rek. sànni benn bi ne Charles la. boo ñëw setantal tool bu. baax a baax moom la doon andi misaal nag ne foofu nga xool ndax mën ngaa booleem ndeet mu ne fa innoo naka la am baam rubama yabdu amaana mu feeñ moom xadis bi mu xaalifan daa ji wute walakin waaye inde taamuli si jamono setantal laa yakun du nekk mu xaalifan di aji wute xadis bi mën naa ni wute te boo xoolee gis na mën nga ko boole fa masalan ci misaal xadisu bi wax ne allahuma yow buur yàlla rabba haji daawati yow borom woote gi ak taamati bu mat bi wasalaatu julli alqaayima gi aji taxaw aati joxal muhammadan al wasilata wal fadila joxal muhammad wasila ba ak ngëneel ga wasila maqaam la ci aljana boo xam ne nii kenn du kam lu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa baasu yàlla nga ko yebal maqaaman ma maqaama buñ sant alladi ba nga xam ne waxante di nga ko in nekk nag yow laa mi ànd rendez-vous maanaam nga dële da nga def baadu naas ñenn si nit ñi xaala wax nañ ne inna ziyaadata innaka laa tuxliful miyaat shaazatun ñu ne innaka laa tuxliful miyaat shaaz la lu tax ñuy wax loolu ñu ne li ànd ak sara ruwaati ndax ñu ëpp ci ñuy nettali xadis bi rawawu nettali nañ ko bi duuni haadi ziyaadati ci lu dul ndoolal gi fa takun mu nekk riwaayatu man infarada نترب كويتو نبيات موم شاذتن دي اجي جاد لانو نخ موم مخالفت ندهوتك لسقات نيل نيورني وين كان دي لنك الراوي اجي نتيجة سقتن دي كور في ذلك بين المسألة بوخاني دوغو سي بنتب شاذ ني دي نتي الحديث بي يمتي محمودا الذي وعدت siqa ñëw nettali ko yokk ci innaka laa tuxliful miyaat ñee hmm. siq bi dafa wuteeg la mbooloo mi nettali mais fii wutee amut fi wutee mooy kii nettali dara nga nettali safaan mais kii dafa nettali dara kii yokku ci loolu ziyaadatu siqa la ziyaadatu siqa nag boo demee ci sarxu imam Nawawi bu muslim nee loolu dañ koy nangu digg boobu bàyyi ko xel baax fiir naa ko jeex hmm. ziyaadatu siqa loo xam ni siqa ku xóor moo ko dolli hmm. kooku des koy nangu hmm. loolu du wutee da ngeen wax dara moo mu netti loo xam ne yéen boolewu leen ko ci hadis ba waaye ne waxu leen dara mu weddi ko mu contrôler xam hmm. nga noo a xam laakin noo waaye li ma mbaam mbaam yumkin jàpp ne an naqulu ñu wax laa mu xaalifata dee te wutee wonaa fii laan hadis ziyaadat ndax ndollal gi laatu naa fi wuteewu tëg ma sabaqa la ko bàyyi su inha ngi si moom laa tukka ji bu du ko weddi walaa tuxas suu ko def jagleel du ko def taxsiis dara daal ci wax ju jiitu way na ma tat bu na ko da koy tampoo rek bi taabiin ci tampoo koo xam ne moom min doyen moom mi nga bokk si ñaar na koy gëm ñi kama xaalakum nu ma xel laa yàlla am si ñoom rabbana yow suñu borom waatina yàlla nga ñu jox ma mm-hmm. waatana la ñu dégg ala rasulika sa yonent wala tuxsina yàlla bu ñuy gàccal yowmal qiyaamati kër bis penc innaka naka yow laa tuxlifu doo wuti al la rek kon loolu foofu jàppal ne ziyaadatul siqa dañ koy nangu xanaa mu ñëw dàq la nga xam ne ni mbooloo moom moom lañ saxal te mbooloo mu di siqa ni moom wala mu dàq loo xam ne ku ko gën mën a mokkaloo la gën koo maandu loolu la saxal wonaa fii naqul dañoo wa bansu yebal ko maqaaman mahmuda maqaam bu ñu sant alladi nga xam ne waatoo ding ko innaka laa innaka yow laa toxalifa doo wute hmm. ab dige hmm. kon fay na isim jamono boobu yaxtaaju dana aajoo illa an natasabata ñu sax ñu wóorlu fi masalati ziyaada ci masalam lu ñu yokk ci xadis bi xar mhm. yee ndax moom muxaalifatun day wuteeg xadis ba mhm. aw xeyri muxaalifatun wala wuteegul mhm. a mu naa nako ñun laa nata saro gaaw bil xawli ci wax bil muxaalafa ne dafa wuteeg xadis bi da amee muxaalafa ndax wutee taxan yi dana namu andoo ne moom laa yumkin du jàpp ne aljama boole <laughs> boo ne dafa wuteeg xadis bi rek mooy mënoo leen a mënoo boole loolu lay teg dégg amma isa am kana waaye bu jàppandee amma isa am kana waaye bu jàppandee aljama boole fala mu xaalafa déet ak wuute su fekkee mën ngaa boole waxi foofu wuute amu fa hmm? waaw waal yustarat ndax dañu saatal fi si suuf si si xadis bu jàdd a nekkul mu nekk fi xadis waaye dañ ci benn xadis bi maanaa an yakun mu nekk xasal xadis bi la xadis rawaaw nett na ko jamaatun mboolo alaa wajin ci anam wa rawaaw mu nett la ko fardun kenn alaa wajin ci kanam yu xaalifu dana wuuteeg al benn xadis rek la ñuy kii nettali ko keneen ko gën a mokkal nettalee ko nu wuuteeg ni mu ko nettalee ñu ne bu njëkk bi chaz la wala boobu ديو منانة الحديث كان نت لبرين حديث بوقع بوكو تكسر حديثهم وهذا في داقة حديثهم من حديث مشاهد جبل نعال نعال أنا يجيب موخ من نشي سكون دقو داق حديث كي نخم نموم لن جنة لنج جبل نشاهد لبرين دم المحفوظ دا سو نت لي وقت نيد نت لي وقت بوقع من في داقة سو وقت بيكون سو وقت جي شاذ لا مو خم جمعي محفوظ دا نعال بدنين بوري nangu leen ne yonentoo ko waxta mënuñoo ànd kon sa wax ji moo wérul hmm? xam nga naqul dañu wax ne laa yustaf duñu sàttaal loolu duñu sàttaal nekk ci benn xadis hmm. yumkin dana jàpp ne an yakun mu nekk ci benn xadis wa fi xadis yi ak ci ñaari xadis haza lii huwa allazi mooy li nga xam ne yazharu dana feeñ lanaa ñeel ñu min tasarrufaat wax la maa ngi su soppandiku borom xam-xame misaalu zalik misaal loolu maa xaja la génn ko asaabu sunna ni ñooñ sunna min xadisi abi hurayrata ci xadisi abu hurayrata radiyallaahu anhu ko yàlla gërëm ana nabi ne yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam qaala wax na idan tasafa bu xaajee chambaanu baraxlu fala tasumu bu leen woor waaloolu xadisu xadis bi saxaw wéral na ko baax ulama ñenn si borom xam-xam wa qaala mu ne innoo nag moom yukrahu sibni asiyaam woor tatawwaan woor ak coobarew isan tasafa bu xaajee chambaanu baraxlu illaa man kaan lu mooy koo xam ne loo ñeel ko aadatun aada xam nga aada ne bu baraxlu wooree bu leen bu xaajee bu leen woor kon fukki fan ak juróom yi mujj ci baraxlu buñ ko woor xaris bi wér na fan yu mujj ci baraxlu yow sib ku ko woor lu mooy mu nekkoon sa aada falaa karaahata nga ne nga naan woor rek ba tombeek moom continué ko loolu loolu ko waxaa moo imaam ahmad laayo ko sibuñ ko imaam ahmad ne fukki fan mujj لأن هذا الحديث إن حديث بشاذ دفجات لأنه نحن يخالف ريوتك حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة لأنه الذي بين في صحيح من البخاري ومسلم ومن قول ما يوحي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بولن جيتال رمضان ويركور بصوم يوم تور بس ولا يومين تشاغن نهار بس إلا كان لما كان رجلا غور kaana nekkoon na yasuumu di woor saw man ak woor fa yasuumu mën na ko woor bi na bu weeru desee benn fan wala ñaari fan bu leen ñaari fan yooyu wala benn fan boobu bu fekkee ne nga doon xoor des fan ma ngeen bu leen weeru koor des benn fan wala ñaari fan rek ngeen xoor loolu lu muy mooy weeru koor bu desee lu ëpp ñaari fan mën ngaa woor fan yooyu kon fukki fan ak juróom yi mujj yi ci baraxlu mën nañ ko woor liñ bañ rek mooy ñaari fan yi sës ci koor gi nga woor ko loolu la hadis bi di tekki comme nekkoon sa aada nag nga doon woor ba tombéeg loolu mën nga ko woor wa dalika loolu li anna xadis bi nga xam ñaareel bi yedul dafay tegtale ala jawaasi siyaami si da nga ñaari fan avant ñaari fan ci koor gi mën bañ rek mooy xaar bu weer ko ñaari fan nga woor bu dul loolu mën ngaa woor woo wërta xadis bii arjaw moo gën a la nga mën a awali ci xadis bu njëkk ndax hadith bi dafa ñëw ci Bukhari ak ci ci muslim dégg nga te hadithu Bukhari muslim moo gën a lënd hadithu ku bi ñëw ci Ibnu Maaja sax hmm? jàngoon nañ ko ci gannaaw dégg nga isan kon nafa mu danañ dégg min haada ci lii anna shuzuz ne jàdd ga lay sa nekkut sartan di sartan an yakun mu nekk fi hadis waaye dina ci nekk benn hadis xam nga li ñaari xadis yi bokkuñ mais ba ñu wutee rek dañoo jël xadis bi gën a lëng ne mooy al mahfuuz beneen xadis ba ñu ne huwa shaadu xam nga ne moo xam ok misaalu aaxara beneen misaal maa axrajoo nga xam mooy xadis bi nga xam ne génn na ko Abu Daawuda fii sunani ci sunnaam an nabi mu ñëw si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom xaala wax na laa tasuumu bu leen xoor yow ma sabti bisu samedi illa fi mafturida lu mooy lu ñu farataal aleykum ci yéen bu leen xoor samedi lu mooy koor goo xam ne nii farata la xam nga bi dafay xaaye woor samedi koor ak farata hmm? koor ak farata nag dugal na weeru koor ak bépp woor boo xam ne fa hada alxadis bi la xadis yu xaalifu day wuuteeg alxadis alladi xadis bi nga xam ne fii saxiixayn mu ngi ci Buxaari Muslim xadis bi wuute naag bi nekk ci Buxaari Muslim bi nekk ci Buxaari Muslim moom dafay tegtal nañoo xor samedi liñ mooy nga tànn samedi kese di ko xor wowaa xadis boobu mooy ànd na bi nekk yonent bi salaa sam wax na la wañal ko ixdaa nisaa yi kenn si soxnaam yi ne innaa nag moom saayimatun dafa woor xaada yoomi bis bi maanaam dafay woor saayimatun dafa bëgg a woor samedi wa kaanata nekkoon na bis ba yoomul jumaati dafa bëggoon xool bisu àjjuma daal waaw bisu àjjuma daal waaw bisu àjjuma fa xaaral wax laa ñàkk ko asumta ndax war nga am si démb mu ne laa su mu ne daa war àjjuma yonent ne ko war nga muy alxames mu ne ko déedéet mu ne ko da nga war suba muy samedi mu ne ko mu ne kon dogal nga déggee ne kon boo waroon alxames ak àjjuma wala àjjuma ak samedi dana loolu dana dagan waaye jël àjjuma gi kese lañ bañ loolu dafa mel ni tax ñu bañ ko mooy bañ ñu yaakaar ne màggaay yi àjjuma gi lay doon comme ni gaa yi bañee bàyyi liggéey bisu àjjuma fa xaw la waxam atasuum mooy na la ngay woor xaddan suba woo moom yow sabti mooy bisu samedi yeddul dafay tegtal ala jawaaz yi siyaami yow sabti ci daga la woor bisu samedi yonent wax gi mu ko wax ne ko ndax suba te xam na suba la samedi mooy maa ne kon woor samedi daga na ndax bu daga doon ko wax nan ko ndax ko woor kon ñu sa yéen yi bi wane dagan na mooy almahfuuz xadis bi nga xam ne dafay aaye woor samedi kooku mooy ashaaz ñoom loolu lañu wax waaye ñaari xadis yi ko boole dégg nga mu ne li zalik loolu tax ixtilaaf wuute na ulama borom xam-xam yi fii sihati xadis ci wér ak xadis bi tere an siyaam yow sabti ci bi xoor bi su samedi mm-hmm. ala aqwalin ci ay wax xadis bi su samedi borom xam-xam nañ ci ay wax fa minum am na ci ñoom man qaala ku wax inna al xadis nag bi mansuuqun dañ ko folli bi su samedi bii tere bi su dañ koo folli وهذا القول وحدي ضعيف لطلا لأن من شرط حكمي ده بكون شرط أت بنسخة فولي على المقام بتاريخ جي التاريخ نقام كان النبي صلى الله عليه وسلم واحد بي تاريخ هور بسو سمدي أكن لو واحد بي سنتان هور بسو سمدي بو خمي نك حديث بي تاريخ هور بسو سمدي مم نجيك واخ عندي حديث بي سنتان هور نبي سمدي نل بنجيك بنجيك فولي داكور waaye waaye boo xamut ban si njëkk wax foofu ak làmbatu la. mënoo xam nañ ko fëlim de ndax bu fekkee bi santaane xoor bi su samedi la wax la njëkk wax la mujj wax mooy aaye xoor bi su samedi dañ koo folli lu ko folli hmm? kon balaa ngaa xam ndax wax ji dafa folli wax ji da nga war a xam bu jiitu bi mujj mooy folli ba jiitu هنا في لان مقام التاريخ اسوار حديثي كان لنكو كل من يخم فولي أمن فهم دول ومن أمن يوم من قال كو بل فنك الحديث حديث بي تري هور بسو سمدي شاذ دفجد لأنه نحمم يخالف ريوتك الحديث الذي عدد بها خاني في السيان من بخاري مسلم الذي بها خاني يدل لبيتك على جواز السيام يوم السبت ci da nga ne xool bisu samedi ne ne comme que dafa wuute ga hadis bu ñëw ci sahihaani te xam nga ne sahihaani moo gën a wér hadis boobu di daganal xool bisu samedi bii di ko dàq kon hadis bii dàq xool bisu samedi chaz la xam nga la wax wa minhum am na ci ñoom man xamalahu ku ko yen ala wajin ci anam goo xam ne laa yu xaalifu du wuuteeg al hadis la ci hadis bi nga xam ne fii sahihaani mu ngi ci buxaari muslim am ñu ko jàmm boole ko wa zalik loolu bi an yoxuma la ñu yen annax yu tere ga ala ifraada yawmi sabti ci wéetal bisu samedi bi siyaami ci xoor koo xam ne samedi kese lay xoor lañ aaye comme ni aaye xoor àjjuma kese waaw xëy na dañ ko doon aaye ndax yahuud xam nga dañ doon màggal nag bu duggee ci islam may xoor wala ñuy moo tax bañ ko dàkk samedi kese di ko xoor pour may doore yahuud kon dañ ne li yonent bi aay mooy xoor bisu samedi kese moo tax mu ne bu leen xoor bisu samedi lu mooy lañ farataal ci yéen fee nag daf ne ndax mën nga koo booleeg mën nga koo booleeg ajuma boo ko boolee ajuma kon dara nekku ci wala nga boole kook dimanche su boobaa ñaari xadis yi wutewuñ yaa ngi seetlu ma wa maa itaa saam waaye bu xoolee yow man bis xablu njëkk samedi mooy ajuma aw yow man wala bis bandoo gannaaw samedi mooy dimanche fala mu problème وهذا الأخير واحد مجيء جماعة بولنا بين الحديثين دي قنت نهاية الحديثة وإذا أمكن أبو جابنا الجمع بولنا نهاية الحديثة فلا شذوذ كوكو أمود بين جابة خياس لأن من شرط شذوذي ndax bokk na ci sàttaab ñu atte na xalis bi chaz la naa fii وهنا في لا مخالفة وتأمت فقالوا عن حديث النهي حديث التري أن صوم يوم السبت شهور بسو سمدي محمول دنكوين على الإفراد كي ويترك سمدي كسي تلول نقلنا نخ يولي نمقل سمدي xam nga jàpp bisu boobu di ko woor ah mën naa bàyyi benn pas-pas di dugg ci lislaam sax ndax ñoom bañ dugg ci lislaam sax dañ bàyyi yàpp gi soowam gërëm yàpp gërëm loolu dagan na ndax lan ndax nit daanaka lam jugee dafay xaw a des ci moom pour mu set ci wàcc day kii léegi nag pour ñu dugg ci uddu xuloo fi silmi kaafatan leneen aaye lu leen delloo ci pas-pasu njëkk yi hmm? rawatina bu dee pas-pas bi mën naa tax ñu màggal foo xam ne daanaka du dara waaw da nga bu doon sax xadis yi xam nga yonent Yàlla Moussa ba ko yowóor yi di màggal di woor yonent sa parce que loolu lu ñu war a màggal la kon même boo duggee ci islam di màggal Moussa sax amul problème waaye ab bis rek di ko màggal ba mujj dugal yu kenn xamul yooyu moom dañ parce que loolu daanaka jaru ko yaa ngi seetlu mu kon hadis bi teree koy naan ifraad ci wéetal ko waaw may sa jamaa waaye bu dajale ilayhim summa qabla wala ko njëkk aw maa ba'da wala ko faree gannaaw fala bas ayo fi nga idin jamaa boobu bu fekkee da ngaa war ak dimanche wala ajuma ak samedi kooku fala baas ay xëy si jamono boobu su ko defee lii mooy misaal la bu lay confirmer ne la charge mën naa nekk ci ñaari xadis yu bokkut waaye it ci am ci lay da ci lay génne boo mënee dajale ñaari wax yi ba muy benn foofu fala chir bu sa mm-hmm. amut benn benn gàdd xiyaas bu ci nekk. Mm-hmm. وتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته